leen nuyu di leen monsieur le ministre monsieur Moustapha Ba ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre monsieur Samba Sy ñu ngi lay nuyu di jox ci monsieur le ministre aussi des transports ñu ngi lay nuyu yow say service di leen jox cër bi leen yàlla jox monsieur le ministre au nom du département de Keur on tenait vraiment à vous remercier par rapport à certains actes yi ngeen teg muy gis nañ ne que bi ñu nekkee député ba tey tontu ñu daal li commission yi jeexee daaw da waxtaan ak ay say direction waxtaan ak direction wu assainissement wax leen coono yi am ci yenn bërëb yi on a vu que des efforts sont en être faits sur la route qui va de la station de Kermassar vers Auchan et vers Rufisque effort la nañ ci war a gërëm waaye monsieur le ministre dama fay taxawoon daaw wax la ne la vision que le président Macky Sall a eue

tey nag waxoon naa la ko daaw mais tey dañoo jël parole ñun waa Kër Massar jàkkaarloo président Amathou Sall moom la ñuy waxal directement ne ko yéene gi mu amoon ci département de Kër Massar ci autopont bi yéene bi agsi na àgg na waaye am na ay jafe-jafe yoo xam ne fa amoon bu njëkk ba li am léegi moo ko ëpp parce que ñun dañoo gëm ne que la la vision était ambitieuse mais le courage restait parce que ñi fa nekkoon nekk ci aile yi tax ñu ñoo dugg ci entrée yi on n'a pas eu le courage de les enlever de là où ils sont pour élargir les routes et ça nous amène beaucoup de problèmes pour accéder à nos maisons dañuy wàcc liggéey toog suñu ay bérébu liggéey ba ay 22 heures 23 heures doo ko ñibbi suñu kër pour bañ a jàngonte ak ay ay ay ay ay ay yoo xam ne coono la pour nga dugg sa kër ay embouteillage beneen bi mooy route de Malika des travaux avaient débuté sur la route de Malika nga ñëw ba ci station Malika bi arrêté travaux yi jëm Yeumbeul Nord et jusqu'à présent man moo fay jógee man y'a trois ans di dem tukki ji ba ma ñëwaatee ba tey dara bougé wu fa te nag Malika dëkku dëkku dëkku laayeen la kër xalif bi fa ngeen tar arrêté travaux yi fa la nekk l' accès est extrêmement difficile et on ne comprend pas pourquoi ba léegi àggu beneen bi mooy le péage dont vous êtes en de parler mooy le péage bi ñuy dégg amuñu ay firnde nag du war a jógee Cambérène jaar Géejawaay dem yëmba Nord jaar Malika pour mën a jeex yoon bi jongante dem dem Ndar boobu monsieur le ministre bu fekkee ne da ngeen ci am xel ba koo def ta ne ñun waa département de Kër Massar mun ñu faa dëkk ngeen tëj ñu ci côté péage u Birville bi bëgg ñu leen péage beneen côté bi li fa néew doole amuñu moyen fay péage fu ñu jaar loolu mënul nekk xel nanguwu ko sax dëggal nag suñu coow bëriwul nag waaye nag bii nag boo leen ko defee dinañ bépp de ndax nag ñu ku bëgg dee di nga yëngatu beneen bi mooy les accidents assurance yi ngeen am pour accident yi monsieur le ministre dafa am ñoo xam ne ay kilifa lañ wala ay ndaw ñoom seen ay liggéey di ci daan seen doole am accident de la route assurance war koo mën a lijjanti entre ñaari assurance mais des gens courent derrière les assureurs pendant deux ans trois ans sans pour autant ñu am li ñu bëgg assurance que bu avez da nga faju ñu ko 7 millions 8 millions bu la waree fay moom mooy évaluer moom mu am médecin am bu ko évaluer fay la 400 500, maximum 1 million pour lan il est temps qu'on revoie déjà dès que ñu war fait, fay ñi nga xam accidenté la prise en charge ñi accidenté ba pare xool jumtukaay yi loolu mënutul wéy monsieur le ministre li ma bëgg a waxaat rek mooy la vision du président Macky Sall qui est un ingénieur avéré Macky Sall nag mënuñoo def leen dul lii parce que nag ku ñu ne Abdoulaye Wade mooy sa baay war nga mën a liggéey lu mel nii mais ku ñu ne aussi Idriss Seck mooy sa kilifa di sa mag ba dafa dul dara mu xam la mu xool la ràññee la ci biir ay nit ne la ciix boll ci ay mbiram war ngaa mën a doxalee nii donc jommaluñu jaaxluñu nag mu am vision am ambition mais jàpp nañ ne que depuis 4 mois ou 3 mois on saura suivre les actions qu'elle a démarré et on aura suivre aussi et faire mieux que lui ce qui n'empêche que on reconnaît qu'il a un bilan sur le plan matériel qu'on xam et pour cela on vous vous et le gouvernement merci beaucoup merci cher